borom Touba Belal ñu gën koo xam ci sëriñ Abdou Lahad Mbacke ñetteelu xalifa sëriñ Touba Xaadimu Rasuul mi ngi gane àdduna ci bisu ajuma atum 1914 ci Jurbel 1332 yemook fukki fan ak ñett ci korité moom doomi Cheikhul Xadim ak soxna Mariama Jaxate bi mu tollee ci jàngum alxuraan Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul da dina koy jox nijaayam sëriñ Amsatu Jaxate ak ku ñuy wax sëriñ Alassane Jaxate foofee la daal di wattoo lu bare bari ci xam-xam ginnaaw ba mas naa ànd ak bis sëriñ Amsatu Jaxate ngir tedd ki ci njaareem foofee la sëriñ Touba sàkkoo ci moom ngir mu taril ko jukkeem bu mujj moom sëriñ Abdou Lahad daal di fàtte ci lenn ci li mu jàngoon ginnaaw bi ci la ne ko sëriñ Touba ne ko ma dindi ci yow fàtte ndax fàtte cërub saytaane la moom sëriñ Abdou Lahad Mbàkke bis boobee ca la jógee lu mu jàngati mokkal ko ginnaaw bi ko tedd ki wàccee moom sëriñ Modou Moustapha daal dina koy yóbbu fële nga xamante ni moom moo di di boole ko ak sëriñ Maxtaar Jeng Kayaar ngir mu jàngal ko xam-xam ginnaaw ba it daal dina koy indi ci Touba boole ko ak sëriñ Abibu Mbàkke ngir mu mottali fa am njàngam foofee la daal di ba jàng lépp lu doomi soxna war a jàng moom sëriñ Abdou Ahad Mbàkke daal di nekk Kanfoori nekkit woykat bu mag ci arab moom sëriñ Abdou Ahad Mbàkke daal dinay sanc ay dëkk yu bari ci atum 1932 ci la daal di sanc dëkk bu ñuy wax Daaru Naar ñu gën ko xam ci Daaru Rahman boobu ci ndigalu sëriñ Modou Moustapha la ko daal di def ay atam toll ci fukki at ak juróom-ñeent ba tey moom sëriñ Abdou Ahad Mbàkke daal dinay sanc yeneen dëkk ci atum 1935 la daal di sanc dëkk bu ñuy wax wax kàddu bulo ji waaye it sanc yeneen dëkk fu ci mel ni Touba Belal Daaru Salaam Mbukki Mbarga ak fu ñuy wax kàddu buloo ji moom Serigne Abdou Lahad Mbacké foofu yëpp ay daara la ko defoon daan fa jàng ak yar dem sax ba ñenn ñi di ko wax yarkat bi am sax ñu naan ko tabaxkat moom Serigne Abdou Lahad Mbacké ginnaaw bi mu wuutoo magam ju tedd ja Serigne Fallou Mbacké juróom benn fan ci weeru août 1968 diirub ñaar fukki at ak lu topp li mu yor yoonu murit def na fi ay liggéey yu am solo lu ci mel ni tabax ay université loolee sax tey ji ay université di judd ca Touba niki noonu daal dinay tabax ay jaamukaay yàlla ca Touba ak ay hôpital moom Serigne Abdou Lahat bokkoon na ci ay jikkoom nekkoon na niku tabe yaatu waaye tamit ku tàng la woon ndax bariwaan na ci lépp lu mu daan wax tey jii dañu ci bàyyi xel bu baax mi ngi génn àdduna ci atum ñu denc ko ca Touba yàlla nañu ko Serigne Touba fayal ci barke Ahmadou Khadim yàlla nga yëgale naalu gaay baax yi fi woon yàlla nga yëgale naalu dogal moo ñaan yu baax ñi la yar ñoom ñëpp xëy a gërëm ak seex mag bii la faggul yàlla xëy ko dogal